ñu loolu la suñ borom azza wa jàll bëgg moo tax mu yebal yonent yi alayhimu salaatu waaye nag jamono bii ñu toll ñu dem bëgg kuréel bu njëkk boobu mag ñoo ñu gisatuñ leen bu fekkee ne yaa ngi jël stratégie bi nga jàpp di ko doxal bul gëm mukk mukk ne sa mbokk jullit mi jël ngànnaay di jàmmaarloog yéefar bi ci toolu xare bi warut a def loolu demal ci mine nu baaxel xadim bu sëriñ Basiru Mbàkke bi Samba Lawbe buur ba Jolof dafa ñëw ziyaare si Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ko ci loo nekk mu ne ko wër-wër loog tubaab yi rek tey ci seen kaw tey ci suñ suba ci suñ kaw Cheikh Ahmadou Bamba ne ko yéen a ngi jéem lu dul sotti ne ko kënu mënut te xeex ak ñaari ngémmi xam ngeen nu ngeen mel ak tubaab bi ñu ne mu ne ko nu ñu mel mu ne ko mu ngi mel ne ki yafal ab gàttam ba gàtt bi fees ba regg bu koy yafal ci muy mbajantu diko bëgg mbëkk muy deltu ginaaw gàtt bi foog ne ki da ko ragal fekk da koo soxlaagul bis bu ko soxla rek sak ci mom pexe ni ko tëwu len leen tëwu len leen tubaab bi fi mu gisal kokku bi mu defé jihadam bay retourné di ñibbi si lu mu wax jihaadi al maadi yafuq kullama mada min al jihad rabbi alima sama jihad ji passé mo kawe jihad ju fi massa jàll ti li ma wax suñu borom xam na jihaadiyan xadaa wa bay i rabbiha wala si waaye kullu kalbin na ba nga dellu ci sayidna abu zarin alxifaari ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam abu zar dafa toog ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko danga nga toog àgg ci jamono ñu ne fitna dana ñëw guddi gi guddi gi ak bëccëg bi dootoo leen xàmmee lépp doon ay njaxas abu zar na yow mi yàlla yónni su boobaa nu may def mu ne ko nala la sa ëttub kër doy te nga jooy say ñaawteef su fekkee ne yoroon nga ak xala mooy balu fet nang ko dam wala nga dugalat ko ci mbarma te tok tey joy say ñaawte tok di xaar de mune jaadul ci abdul mu toroxal bopam mune ko luy toroxal lan moy toroxal sa bop moy soobu mbir mo atanul lo xamne ne na le bo ci duggee do ca genn te objectif ba nga bëgg ag do ca àgg loolu toroxal sa bop kon ku mel nonu kenn du sukkandiku ci mom ba wax ne sharia waree su koo àtte woo nekk ci réew mu mel ni Sénégal loi biñ fi doxal ñëpp ne ci yàlla mu neex leen lépp luy war a dooleel lislaam ñu di ko wàññi par benn par benn ñëpp ne cell daawaati jéeg ngeen gis ñu ne loi réew mi rocc nañ ci peine de mort rocc nañ ci peine de mort jullit yëpp ne cell bañ dem France ñaari président yu jóge ci réew mi dem fa buur président France di leen ca tagg a ah, Cheikh Ahmadou Bamba ci njaal bennam gis nga am na juróomi murit yu defoon lu leen sare a reye Cheikh Ahmadou Bamba daf ne sare a rey na leen nañ leen rey ba bëgg ñu ñu exécuté loolu sëriñ Mouhamadou Bousso ak Mamor Jaara ñoo ñëw taxaw ne ko li nga wax dëgg la waaye yow kenn falu la ci réew ba ngay dox di exécuter peine de mort mu ne leen kan moo ko war a def ñu ne ko tanoor mu ne yóbbu leen leen ca tanoor ba mu dañ demee tanoor bàyyi leen ñu dem laa yanhaakumullahu an allasina lam yuqaatilukum wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina innama yanhaakumullahu an allasina fi diini wa axrajukum min diyaarikum wa zaaharu ala ixraajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humu zalimuna suñ borom nee yéen jullit yi terewuma leen ñi nga xam ne xeexuñu leen ci diine génnewuñ leen seeni kër donte bokk leen diine terewuma leen leen terewuma leen ngeen def ci ñoom lu baax maandu ci ñoom ndax yàlla ku bëgg ñu maandu la ñi ma leen tere daal mooy ñi leen di xeex ci seen diine di leen génne seeni kër di leen sot pour ngeen génn ñooñu daal tere naa leen ngeen def leen ay xarit wala def leen ay partenaire képp ku féetewoo ak ñoom bokk nga ci way tooñ sëriñ bi suñ borom bi mu ñu waxee lii ci alxuraan ba noppi koo xam ne kii foo ñu jekku rey ñu suñuy masaali faale woo ko di gemb ñu ñuy gaañ waruñoo wecceenteeg yow ay ambassadeur xew-xew bii xew nga gis réew moo xam ne ay communiste lañ gëmuñu lislaam gëmuñ lu jégué l'islam seen xol tang ci bañu dak ambassade israël ba nek rew seen rew wo seen ambassade ba nek israël président bu venezuela bi ego sawes ak rew mi nga xamné mo sosalo ak mom président bolivie evo morales président Turki ba nga xol ko premier ministre ba ci président ba Rajab Tayyib Erdogan ngooxal xool bu tàng bi mu wax ba fan yii Israël yebal ay soldat bëgg ku ñu ko assassiné ko nga xool xidma bii am Qatar barka démb réew mu Qatar dagg nañ seeni relation ak Israël réew Mauritanie mi xaw ma lu leen ci dugaloon ñoom it tëj miin nañ seeni alaaxaat diplomatie ak suñ borom dafa am ay jaam ñoo xam ne dafa nay ci ñoom sallallahu alayhi wasallam moo wax ne inna lillahi azza wa jalla dana ina min ibadihi yuxsihim fi rahmatihi wa yuhyihim fi afiyatihi ida tawaffahum توفاهم إلى جنته أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المسلم وهم منها في عافية صلى الله عليه وسلم نينا سن بروم امنا اي جام ньо خامne dafa nay ci ñoom dafa leen di dundal ci yërmandeem di leen dundal ci jàmm waxtu leen di faat faat leen jëme leen ci yërmandeem nee na gaañooñ fitna yi day jaar ci seen kaw mel ne daggiti lënd mi guddi ñoom ñu nekk ci jàmm du leen wàññi dara du leen laal waaw kii Masamba xalaat naa ne day mawdu bi moom ko muy tuul foofu lañ koy yemale ndax dafa mel ne dafa mel ne kii bi sori na te euh, mooy niñ ko waxe woon xam nga li doon aju ci wàllu tasawuf boobu dafa am jamono ju nekk bu jotee am xew-xew yoo xam ne ab jullit bu ñuy buy wax ci diine sañoo caa bañ a wax waaye gis nga lii ñu wax lépp lépp bokkutoon ci programme waxtu waxtaan wi fi nga xam ne fi la ñu doon war a tàmbalee sujet bi nga xam ne moom nga santaane woon ci la ñu toll nii doon ko war war doon ko war a tàmbalee lii moo nekkoon mawdu mawdu bi te ku nekk xam ne ne fi ñu toll nii guddi na te heure bii rek daanaka waroon nañoo fekk ci yoon wi jege te diggante Louga ak Kaolack xam sori na kon xam naa dañuy ñaan yàlla ba beneen yoon nga xam ne dafay fekk soo su ngeen koy waajal ngeen waajale ko ci beneen façon beneen système boo xam ne bii ci lañ koy gën a gën a gën a jekku dal euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu